asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak euh, diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk di sant suñuy mbokk ak suñuy xarit ak suñuy am di jàmm yi nga xam ni booba ba léegi rekk rek yendaluñu fanaan luñu di ñu yónnee message di ñu woo di ñu nemmiku ndax gëj gi ñu gëj ci waxtaan yi loolu nag wone na ne kon kóllëre gu wér moo dox ci suñu diggante ñi yónnee message ak ñi ko yónneewul ak ñi wooteek ñi wootewul ak ñépp xam nañ ni am na lu ñu doon fi yéen loolu nag ñu ngi ciy sant suñu borom tabaraka wa waaye nag di leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ndax loolu mooy ab ànd bu sincère kon yàlla mi nga xam ni moo mën a sàmm yàlla na nu sàmmal ànd bi ba mu yàgg lool suñu waxtaan tey nag euh, dañ ci tënk ay tomb yu gàtt rek moom lañuy tàmbalee ci suñu ñëwaat ci liggéey bi fekk boobu ci fan yépp may am ay vidéo yu may dajale di ko gis waaye jot gi mayu ma ko won ak yeneen yu tax yoo xam ne yi mënuma won a ñëw di ci waxtaan incha allahu li ñu war a dellu lépp daañ ci dellusi bu fekkee ne loola nekkul lu weesu loo xam ne lii duñu ci mën a dellu ñu ngi tàmbalee ci benn vidéo bu am solo boo xam ni genn gune gu jigéen moo ko doon def ak baayam baayam nag tur wiñ ko gën a miin mooy Azou le Beau di nit koo xam ni kii ku doyadal boppam la doyadal sa bopp weesuwul toog jàkkaarloog sa téléphone di enregistrer di saaga ay saaga waaye rawatina di ko def ci sa wetu doom ju jigéen joo xam ne ji ma nga tiim sa bopp nga léttu say pàq mu lay defal xawma lu muy def ca bopp ba vidéo boobu keroog ci fan yi weesu waxoon nañu ca nga xam ne ay exemple yu ñaaw moom lañuy jox askan wi ndokk ba nga xamee ne nag doomam ju jigéen doomi boppam ju mag nag yaakaar naa ne bu amul borom kër it toll na ci wër ko am xaw may atam kooka moo toog ak moom di ko wax wax joo xam ne ji yaakaar naa ne ku dugg ci réseau yi di nga ko gis di ko yedd mu ne yàgg nga xam ne dangay mujj sax am sa yow ci kii ni muy waxante ak baayam te muy ay waxi dëgg rekk waaye lalay rusloo mooy yàgg ji ne baayam yàgg nga xam ni sa doom moo des léegi ci di la delloosi parce que xam na ni ñi lay wax naan la emee ak nangam ak nangam ñëpp dañ lay jay ngay jayaxu loolu nag kon ñu ngi ci ndokkeel doomam jooju di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala na gën a leeral xolam ak xelam yàlla na ko gën roofit nag fulla ak fayda ju toll na saa yu gisee lu waxu te jara wax rek mu wax ko kon tomb boobu foofu lañu ci yam mu am itam ñaar ñoo xam ne ñii ñoom elles se sont données en spectacle ah une fois de plus laay wax ñi ngi wone seen bopp kenn ki coromande Mandela la tudd kenn ki ci des Binta jàlloo ku xool seen comportement xam ni fii senegal média amatu fi wala bokk ak pëccxoo moo fi am ñëpp di def nu leen neex ay règlement de compte su ngeen koy def dangeen ngeen koy defi seen yéen seen yeneen bërëb am nga numéro am wala mën nga koo am bu la ñemee jàkkaarloo leen ci wat sab bi ngeen defante ko fa ba mu saf yoonu kenn newu ci waaye ñëw ba ci plateau boo xam ne bii émission moo ko war a tax a jóg ngeen jàkkaarloog nit ñi di leen fontoo yéen ñaar la ngeen di waxante sama yoon nekku ca waaye li ngeen jëf jëfalante ko askan wi loolu la sama yoon nekk te képp ku rafetlu benn boo mu ci mën a doon muy bu coro muy bu euh, Binta jàlloo ku ci rafetlu benn rek doo nit quel que nag camp ba mu féete xaw ma coro defe naa waa Pastef la féete ka ca des féete ci opposition yi ku ci ne feeñal na boppam waaye foofu seen problème yooyu ngeen di régler foofu du pro du réglekaay bi du reglekaay bi parce que yéen xamuleen sax li ngeen représenté malheureusement xamuleen ko indécence bi ngeen nekkee sax dafa mel ne ay rabu àll ngeen gën a su ngeen amee seen problème régler leen ko feneen fu dul ci ay plateau ay plateau télévision du réglekaayu problème te loolu la ma nuru en tout cas ima décor ba loolu la ma jox parce que bu doon seen téléphone yi rek la amul problème ngeen def seeni vidéo génne ci TikTok bi yéen a xam waaye foo xam ni fii day tasaaroo ñëpp di ci jot loolu yaakaar naa ni daal am na neneen nu mu waroon a demee nu dul noonu ñu ñëw ci Madiama Fall Madiama moo waxal boppam ni moom certificat d'étude amu ko vidéo baa ngi ci internet nee na kenn mësu ko ne baa mësuta jàng xaw ma lan la mécanicien xaw ma defarkatu peinture loolu la wax yàlla day dana may doomu aadama xikma ak xereñ xel mu rafet yàlla dana ko maye ku dégg maxtar sekk mbooro rahmatullah alayhi xam ni yàlla dana may jàmbi loo xam ni léeg-léeg ci xel day jëggi dayoo ku xam ko ci barma te yaakaar naa ne jooje jamono alxuraan day buy amit bariwul yàlla yox sol ko xel moo xam ni mii foo takk rafetaay ga jéggi na dayoo waaye toujours ñooñu dañ daan yem ci cadre bi nga xam ni mooy seen cadre loolu mooy war boo amee sa xel mu rafet nay xel mu rafet ngay jox nit ñi parce que les gens en boo defee tamit sa yenn gëstu yoo xam ni mën nga koo jot li nit ñi ba tey baax na waaye léeg-léeg ma jama dugg foo xam ne fii moom sax du xam fa mu dugg fan la ñàkka jàng gi nag ci domaine yépp jàngul français jàngul la ca des moo ko wax de amul certificat moo ko wax waxuma ko nee na jàngul alxuraan jàngul fir ferul ijji kon loolu it feeñ na ci ay jànginam tareem léeg mu jëlub aaya dégg nga xaw cee ñett ñetti kon majama danga da nga war a maandu ci lu jëm ci luy firi alquraan ak luy dugg ci wax waxu waxu yàlla waxi diine moom danga ci war a maandu lool ndax loolu muy wax naan bésu penc mi yi ñuy wax naan dana ci am yépp nangam nangam amul xanaa kay <laughs> jusu bi gëna a tuuti ci alxuraan bi ci gën a suufe suufe ci mbind mooy am mayata ak suuf ca la sootu sóoratu takwir nekk iza shamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat ba aaya ba saar wa jeex la ca suñu boroom wax ne àddina buy tukki noonu lay demee yooyu yëpp nga bëgg ko jël yow sànni fële ca àll ba naan way bu pësu penc ma nangam yooyu yëpp ay wax la nit day maandu loo xamul da ngay baax bul forcer sa bopp ci nit ñi jox nañ la audience léegi rek xam-xam bu rëy bi nga am xam-xam nekku fa sam xel nag mën naa rafet nu man loolu sama yoon nekku ci waaye wàllu xam-xam daal moom déggaguma nga wax ci lu ñuy mën a tuddee xam-xam dem nag gëstu xool sa euh, ay encyclopédie ay nangam ak nangam loolu lu yomb la moom jële fa la nga fa mën a jële loolu yëpp mën na nekk ak it nag ay affaire u baatin yeeg nangam ak nangam yooyu yëpp ay wax rek la ay wax dong la damaa daje ku mag mu ne ma lii ne la ma ne la mag moomu boo ko doon def def ko ci doomam dana woon doomam demal nga jàngi dugal leen daara jàngal leen yar leen jox leen ay jikko kon yenn yi di ko wax jéem a lëndëmal xelu nit ñi la amul kenn ku la mën a jàngal loo xamul <laughs> te tiimuloo ko mënta nekk mënta nekk yii ñu fi wax yëpp ay sol la alxuraan ak sulli la ak dugal la fi yooyu yëpp amul importance li am importance daal mooy nit ba nga tollee ci war a jàng da ngay jàng boo tollee ci war a tari nga tari nit ñi gis li nga jàng xam fu mu tàmbalee xam fu mu yem ko defee foofu la ñuy yem ci kàddu googu Youssou Ndour tamit dégg naa ko mu ne moom depuis deux mille dix neuf deux mille vingt dafa gàttañ lu nangam nangam euh, di jéem a saxal maanaam noppi gi mu noppi kenn déggatu ko mu yëngu nee na ku nekk daa soxla boppam te nit bu soxlaa boppam soxlawul nga koy influencer nee na réew bu soxlaa boppam da ngay bàyyi askan wa décider xanaa yuusu kon fekke da la cee booleetul loolu du taxawaay citoyen te xam nga ko bu baax ndax ba nga fi amee say engagement bopp defoo woon noonu na nga jëflante woon ak Ablaye Wade ñëpp xam nañ ko loolu moo la yóbbu ci bi bi Macky sàll faloo fal la moo la ci yóbbu woon ba mu demee itam xëy na ba gis ne foofu la tegoon arrangé woo ko mu jëli keneen yóbbu fa ngeen teqali mu def la conseiller xawma lan ak avantage ya ca aju yëpp yuusu ñun ci réew mi la ñu dëkk am na lu ñu xam nga ne pat waxatoo Macky sàll di mbaañaxe nit ñi di leen toroxal li xew ci réew mi yëpp adduwuloo ci kon danga waroon a continuer de fermer ta loolu moo gënoon loolu moo gënoon ndax nag mënuloo dikk di layyil loo xam ne lii amul sens ba mu la arrangé yaa ngi doon wax ba mu la arrangé génnoon nga jéem a mobiliser peuple askan wi ña ca mën a topp sa ginnaaw topp la am réew noonu la acteur war a dox buy dox dangay ànd ak moom di dox bu doxul nga wax wane ne doxul loolu mooy yoon kon jusqu'au jour où nous ba fii ñu toog di wax ak yow kenn warut a dégg sa gémmiñ gi nga weddam kenn warut gis nga weddam dangaa war continuer di wax ci réew mi lu baax nga ne baax na lu baaxul nga ne baaxul wala bokk ci sama gisin man baaxul waaye banki loxo mosoo bank say loxo xanaa kay léegi la la arrangé man nag ànduma ci boobu façon man ko defee bokk yi fii la ñuy yemalee kàddu gi ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.